sama xarit la sama doomu ndey la li ñu ko teg jaaruwut naqarlu nan ko ñaawlu nan ko te ñi ngi xeex lépp lu ñu man pour ñu dindi ko ci saayir ak si baatin parce que nag lu ëpp tuuru ndax nii ñu koy def defuñu ko kenn ci réew mi malgré ki jàppuñu ko waaye daanaka li ñu ko defal jàppayam parce que boo mënta génn sa kër Ken mun la seet si su yakana ni naa ne yaa ku yam ndax li firne bi man mi di wax ak yow bima jokk ak mom ni ko danaa la yone xaru tabaski dama demane Antoine diom autorisation pour yobbu ko mais tontuma sax lolou mo lay wane la xagn nan ko tay li nga xamanteni mom la ko waron def muy dem julli ji ak njabotam dipi bi nga xamanteni def nan ko lebele epp nu dal ki wer ak ay fan munta dem ci gensor pour liguey ci meram kooku ku ko ñawlawul ku ko naqalawul doo gor ak lu ma wuute wuute ci yenn kàddu yi ci ay communication ak lu ma wuute wuute moom ci naqar bi ma am yëpp te gisuma ko sama côté waaye man fa ma nekkoon laa nekk mooy askan wee ma ñor te lu mu koy def ci askan la bokk moom te jàpp naa ne bokk na ci moom ñi ma war a jiite ëllëg nga xam ne maa ngi war a nekk seen président kon yaakaar naa ne loolu dinaa ko wax parce que ci askan wi la la bokk kon maa ngi ñaan état Sénégal mu jël ay responsabilité comme moom nee na état bi nee na C'est un petit cadre de la Vous Ousmane qu'il y a une condamnation de 200 fermes. Vous pensez y a une condamnation de 200 fermes. Vous pensez qu'il y a une condamnation de 200 fermes. Vous pensez y a une condamnation de 200 fermes. Parce que vous pensez qu'il y a une condamnation de 200 fermes. Vous pensez qu'il y a une condamnation de 200 fermes. te ministre de la justice démb ci commission bi leral nako, ko nee na bu fekkente ni maanaam justice pare na procureur de la république mooy apprécier ba xam appréciation bi ma gis nag bu procureur de la république ak état bi mooy xam na ni Ousmane Sonko bu ñu ko jàppee lenn mën naa moo tax kenn du ko jàpp maa ngi dala xelu askan bi yëpp ni leen Ousmane Sonko kenn du ko jàpp waaye ñii def aussi tegul ci yoon parce que nag programme ak Sall mu doon wax rek lay lay continuer mooy man de dinaa dem waaye dinaa ko yóbbaale. kon yóbbaale googu moom la bëgg a def waaye ñu ñëpp nañu taxaw jom ak population bi lànk loolu parce que nag ñun kenn duñu tànnal kan moo ñu jiite ëllëg lu du sénégalais yi te sénégalais yi ku ne xam na ni Ousmane sonk dugg na ci seen xol te ndaw la am na procès procès boobu mu yore ñi ko si bëgg te topp ko si du ñu seetaan ñoom ak ñun ñi nga xamante ni dañuy xeex pour dëgg ak démocratie ñuy baare procès boobu noonu. motax man en tant que candidat Sope ak doomu dara dina def tout tout bañu dënd li nga xam moy bouclier mbokk la mu def ay soxla ta incha allah dana nek candidat 2024 bu nexe yalla mom waye bu nek candidat ma kay gagné parce que man la nit ñi gëna bëgg. ñu jëm ci li nga xamanteni mo jëm ci sama mbiru bop ak sama programme comme ni demb wax dama tëgg ben programme bo xamni jëmi nit la nit. nit nag mooy réew nit juróomi cër la am moo tax ma jël sama programme un cinq cinq la benn mandat de cinq ans cinq programme cinq programme nag mu lay jam mooy dama jël bopp am nu mu ko tuddee jël ñaar loxo yi loxo bu ne ma am nu ma ko tuddee jël ñaar tànk yi tànk bu ne ma am nu ma ko tuddee ndax bopp bi ci la xam-xam nekk ci laa tëgg lépp loo xamante ni moo jëm ci réforme universitaire xam-xam mbirum yooyu yëpp ci foofu laa ko dugal leen sa nag bu ma ko waxee dama may gaa yi sàcc ko mais ma jël benn loxo nijoor bi am na mu ko tuddee jël benn loxo càmm am na mu ko tuddee jël ñaari tànk suuf am na mu ko tuddee parce que ngeen gis ni réew bu dox ñi da koy doxal xam nga nit mooy doxal réew te pour nga defar réew da ngay defar nit loolu moo tax programme bi nit la nit kooku nag dama ñu ko wax incha allah décortiquer ko invité ñëpp ci benn maanaam panel boo xam ñëpp koy fekk borom xam-xam yi fan yi di ñëw bala ñoo def suñu plénière yi suñu suñu suñu congrès bi incha allah bi nga ñu koy mois de août bi mais bi yoon dañ ko bëgg a defee parce que damaa jàpp ni Mbàkke lu tax ñu bëgg ko faa comme que man doomu daar la te bi ñuy bi Dakar ko sampe woon kon waa Mbàkke ak waa Touba yëpp dañoo réclamé waat pour ñu indi ñu def foofu congrès bi incha allah dañu ko def ci mois de août bi dan buñ jàppee date bi dañ ko annoncé ñëpp xam ko ñu xam ne congrès émissaire bi ñi nga xamni moy wa mouvement bi ak ay parti politique yi andal ak ay société civile ak ño xamanteni manam maanaam yëg yeneen ni mouvement mu toll ci 45 ñom ñep adhéré nañ ci suñu projet bi tuddu une sun grande coalition pour def mi nga xamanteni moy mooy euh, euh, euh, investiture pour candidat Cheikh Abdou Bara doli 2024. kon lolu moy li nga xamanteni mom la laa doon wax li si topp nag di ñaawlu bu baax taxaway bi état bi am jëme ko ci baykat yi ndax nawet bi tàmbali na baykat yi amuñu jiw fournisseur yi fayuñu len amuñu engrais ba pare gisuñu ko ñu waxal yeen problème lolu yaaka na ni ñun ñëpp tay war nañu xamni pour réew mi dem fay am manam développement agricole bo xamanteni mom la wara proposer mais tay ji kenn amatu yaaka ci réew mi moo tax situation bi tol fi tol ni kon dal euh en tout cas wax nañ ci lolu taxaway bi dañ ko continuer di alerter ñëpp. suba lañuy waté li nga xam moy procès bi modification code pénal bi suba lañ koy def modification code service article 29 bi suba lañ koy def inshallah allah à dix heures assemblée danañ si wax lañ si wara def wax danañ si def ay amendement aussi li nga xam mo jëm ci code électoral bi nénañu duñ ko mëna a parce que il faut que ñu waté li nga xam mo jëm ci mbirum constitution bi ba am ñent fan wala juroomi fan ba président de la république promulgué par ñu doog indi indiwaat li nga xam moy benen loi bi jëm ci. modification code électoral article 28.9 pour que xamanteni xamante ni Karim Wade ak Khalifa pour dan bok ci élection yi tamit buñ koy def dañ ci taxaw bu am solo hamni, xamni article 57 bi nga xamanteni ni Aly Ngouille Ndiaye fi indi won duggal ko ci léegi pour nga nek candidat da ngay nek électeur su bo dañ ko def amendement ngir Ousmane Sonko mën nek candidat pour mën lacc battu réew mi 2024 inshallah allah moy li nga xam mom lañu ñor ñor lañ bëgg parce que nag ñoo àgg foo xamante ne Macky Sall mooy simple kenn naan kii mooy bokk kenn mooy bokk na ñëpp bokk laa laaju baatu réew mi ku ju ëllëg ku ñu réew mi jox bopp ñu ànd sa yow te man jàpp naa ni Macky sàll nii mu def ba njuuy ñi nga xam ñoom la àndal ci bëgg-bëggu ñu mu àndaloon dañ leen njuuy ci affaire Ousmane Sonko parce que man xam naa lu wér nii Macky Sall du imposé Ousmane Sonko pour mu nekk candidat loolu nag bu ma ko waxee na ma ko xamee woon loolu. waaye mënugul wax dara ndax fi mu toll nii Ousmane amul benn dossier boo xamante ni tey bu dul dossier déformation bi ñu koy tuumaa ci Mame Mbaye Niang boobu sotteegul te loolu rek waru ko mën a tax mu nekk candidat dossier benn bi ñu ko tuumaa si 200 yi nee naa leen du dugg kaso dossier nag boo xam ne duggul kaso tëjuñu la condamnation la boo xamante ni tegul si yoon yaakaar naa ne su boobaa kenn mun laa imposé ba nga nekk candidat loolu nag mi si population bi askan wi nga xamante ni ñoom ñoo moom seen réew daal bu ñu nangoo Macky Sall tànnal leen su boobaa man dinaa gàddaay Sénégal dem wut fu ma dëkk jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah xamante ni mooy bëgg-bëgg Macky sàll ñoom mën nañoo wax ni kat lii comme arrangé wu leen pour Khalifa Sall Karim Wade bokk mën nañ koo bloqué dégg nañ loolu kon comme ñëwagul nag maa ngi laa si ñëpp sénégalais ñu bàyyi xel loolu bu ñu demee ba assemblée nationale ñu ne rëst nañ ko nan xam ni Macky Sall ak benn bokk yaakaar ñoo ko def que ñoom Khalifa Sall ak Karim Wade nekk candidat arrangé wu leen lolu alerte la parce que à tout moment man ñu ñew ñu ni wa député ben boo yakar ñi wat nañ li ñi wat nañ li waye wat nañ li wa wal wat nañ li kon que majorité bi nee naan ànduñu si pour ñu modifier code électoral suba bu ñu bet tank tant que dara sotti ci réew mi dal muy kàddu Macky Sall ñu ni soti na ba bam pour lu promulgué ba ñepp xamni pour promulgué na ko pare jërugul do sa doom wasalaamaaleykum alaykum rahmatullah